مكي ميمونة ميمونة مكية di nuyu di ziyaara ñi nga xam ne ñoom lañu darajaale bis bii te mu te ñuy njabooti Cheikh Ibrahima Fall Lamp Fall Baabul Muridiin ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp di am mbégte di dajeek sunuy mbokki taalibe ak sunuy kilifaatu sunuy sëriñ ci jataay yu tedd nii ngir sàmmanteeg waxtu wi duñu guddal ci taqdim ak ci nuyoo gi lu dul ni rek dañuy sóobu ci thème bi nga xam ni mooy Cheikh Ahmadou Bamba ni'matun wa rahma ah Cheikh Ahmadou Bamba nag comme ni ñu ko xame ñun ñépp xéewal la goo xam ni yàlla da ko wàccee ci kaw suuf ci mujjub jamono waaye it yërmande la goo xam ni dafa làmb làmboo mbooleem xeeti xéewal yi nga xam ni sunu borom dana ko di jagleel ay bindeefam la siyama doomu aadama yi Euh, ndax ni'ma moom bu la ko arab waxee la ñu cay jublu mooy ñaar imma xéewali dàqal la loo ragal wala lu ñu sib wala xéewalu xëccal la loo mébét te namm ko wala nga bëgg ko kon ñaari xeet yi xéewal yooyu ñoo am xéewal ci dàqal la looy bañ wala nga ragal ko wala nga sib ko wala xéewalu xëccal la li nga bëgg wala nga mébét ko wala nga namm ci ñaari anam yépp buñ ci seetloo ak Cheikh Ahmad Bamba danañu gis ni xéewal gine ne ci moom ci ñaari wàll yooya yépp xéewal yu mat sëkk la eh, bokk na ci liy firndeel ñaari xeeti xéewal yooyu sunu boroom la mu waxoon jëme ko ci waa bani Israayil wadkuru nicmatallahi aleykum ya nga xam ni bari na sunu borom la mu koy wax jëmale ko ci waa banu israil te la ca ëpp da cay teg ba mu leen musalee ci firawna ki ñoñom wa id najjaynaakum min aali firawna yasumuunakum suu al adaabi yudabixuuna abnaakum ah, ba aaya ja jeex la ca sunu borom jublu ci xeeti xéewal yooyu mooy xéewalu dàqal leen lu ñu ragaloon waaye it xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla wane na ay xéewal yu bari ci ñoom xéewali xëccal leen seeni mébét waaye xéewali dàqal leen yañu ragal wala yu mën a indi ay tolof-tolof ci seen biir wadkuru nicmatallahi alaykum id kuntum aadaan fa allafa bayna qulubikum tudd leen xéewali sunu boroom ci yéen ba ngeen doonee ay noon yàlla boole seeni xol kon yooyu yëpp ci gàttal ay xeeti xéewal la xéewal yi dàqal la looy ragal ak xéewalu ñoddil la loo xam ni da nga koo bëgg Cheikh Ahmad Bamba nag comme nekkam ci àdduna ak mottali la li nga xam ni mooy mission ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci anami mottalin yoo xam ni genn anamu mottalin musu koo gën a fés musu koo gën a féete kaw yonent bi sallallahu alayhi wa xibaaroon na ci jamono ne téeméeri at yu ne sunu borom dana leen indil ñu leen di yeesalal seeni diine ña yeesal diine ji nag yenn saa yi dina doon ci ay buur yenn saay dina doon ñu koy yeesal ci ay borom xam-xam waaye yenn saay am ñoo xam ne danañ koy yeesalit ci wàllu imdaad tëbb ñi nga xam ni ñooy jaam yi ci kaw suuf xëccal leen lañu bëgg waaye dàqal leen lañu ragal waaye tajdiidu Cheikh Ahmad bàmba dafa matale xeeti tajdiidin yépp yi nga xam ni jaar nañu fi ci jamono bu ñu bëggee firndeel yooya dinañu gis ni Cheikh Ahmad Bamba mënees na ne coppi la ci li nga xam ni mooy yonent bi ci ki nga xam ni mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loola mën nañ koo gëstu seetlu ko ci ay tomb yu bari bokk na ci la mu doonoon mujaddid la doonoon ab coppi ci yonent bi sallallahu alayhi wa bokk na ci nii boo xoolee wooteeg yonent bi woote la boo xam ni dafa doonoon woote gu matale mbindeef yépp ndax kenn umpalewul ni yàlla ba mu yónnee yonent bi la mu ko njëkk a digal cig wooteem mooy ni wa anzir ashirataka al aqrabin woowal say mbokk yi la jege mu def ci diir bu gàtt yàlla yaatal mbir mi ne ko li tunzira ummal qura wa man woowal waa màkkaat la ko wër taayif ak eh, xeetu hawaasin yeeg yooyu yépp woo ndax mission bi du waa màkka rek du say mbokk rek woote ba continuer ab diirit mu xëy ne ko wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin dama laa yónni ngir nga doon ak yërmande doonu xéewal ci mbindeef yépp wax ko it ni ko wa maa arsalnaaka illaa linnaasi yónni la lu dul boo xam ni dangay mattalee ci sa mission nit ñépp bu ñu seetloo yónnent yi fi ma sa ñëw seenu ku woote ñaari anam rekk la yónnent yàlla nuur yónnent yàlla huut yónnent yàlla saalix yónnent yàlla shuayb ku ci daa xaata bante ñeñu la yónni ci ñoom yaa xaw mi nga daan wax ñoom ñépp yaa xaw mi lañ daan wax yonent yàlla Muusa ak Isa ak ñooña nga xam ni dañu bokkoon ci waa bani Israayil bu ñu daa xaata banteeg ñeñu leen yónni ci ñoom yaa bani Israayil lañ daan wax amul benn yonent bu mas a wax yaa ayyuhan naasu lu dul yonent yàlla Daawuda gannaaw yonent sallallahu alayhi wa sallam te yonent yàlla daawuda ca la mu doon waxe yaa ayyuhan naasu doonut woon jottalib yonent waaye dafa nekkoon wone xéewalu yàlla gi mu ko xéewal moom yaa ayyuhan naasu ullim naa mantiqa tayr kon wane xéewalu yàlla gi mu xéewal ci moom la leen doon wan waaye nekkut woon ni da leen doon jottali ak yóbbante kon yonent bi rek moo daan wax ci jottaleem yaa ayyuhan naasu moo tax ba yàlla waxee ne ko wa andir ashirataka al aqrabin dellu waxati ne ko li tunzira umma al qura wa man hawlaha dellu waxati ko ne ko wa ma arsalnaka illa kaffatan linnaasi ci la commencé yaa ayyuha nnaasu inni rasulullahi ilaykum jamia nga gis yonent ya kon ku ne ci ñoom la nga daa woote jëme ca imma saw xeet wala sa dëkk wala sa giir wala ab euh, gox boo xam ne gox bu ñu la ràññeel la yonent bi rek a daa ñëwoon doon woote woote goo xam ne dafa matale ñépp loolu taxoon yonent yooya ka jiitu woon ku ci nekk sa diine ngir partiel gi nga xam ni sag woote dañ ko partialisé woon loola taxoon na ba ñu fa jógee seeni diine ñu wutal leeni tur tur yoo xam ni day wane ni ñii kat daa am fu ñu bopp ndax bu ñu nee yahudiya diine ja ca ku mu askanoo ca seen maam di yahuda ibnu yaqub bu ñu nee ya diine ja ci kan lañ ko askane mooy ci dëkk ba nga xam ni moom la isa yaroo di nasira te ñoom ñu naan ko nazaret kon diine yooyu yëpp dañ ko askane imma ci ay nit wala ci ay dëkk kon yooyu yëpp day wane ni woote ya woote yu ñu jagleel ay xeet la woote yu ñu jagleel ay dëkk la boo demee même ci injil bi nga xam ni moom lañu yor di nouveau testament ci tarjama bi ci traduction bi isa mu nga cay wax ni innama buistu ila xiraafi bani israila dalla ne yàlla yónniwuma lu dut ci ñi nga xam ni ñooy xari waa bani israil yu sànku yi noona la isa doon woote nga gis yonent bi wooteem ñëw dal di généraliser ñépp nga xool diggante Cheikh Ahmad Bamba ak ñooñ sëriñ si nga xam ni dañuy yor ay tariqa nga xool seenuk woote niñ ko partialisé woon ci turu dëkk wala ci turu eh, ab nit ci misaal alqaadiriya askanoo ci turu Abdul Qaadir Jaylaani ci misaal alchaadaliya askanoo ci dëkk bi Abul Xasan Chaadali juddoo te mooy Chaza la nekk ci barriyatul maghrib nga gis lool wuutewul ak la amoon ci yonente ya jiitu woon seeni diine ñu tudde ko ay nit wala ñu tudde ko ay dëkk turuq yépp dëkk dana ca feeñ ci turu tariqa bi wala eh, nit turu nit feeñ ci wala aw askan feeñ ci ku demee ni al naqshabandiya ku demee ni al buraylawiya ku demee ni arrifaiya yooyu yëpp xam ni ci ay askan la yoo xam ni dañ ko caa askane waaye nga gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir doon gi mu doon nicmatan lil aalamin wa rahmatan lil aalamin wooteem ñëpp xaj ci daawul woote ci yaa ahla makkata lislaam ñëpp xaj nañu ci Sëriñ Tuubaa ngir mbiram ni mu lëkkaloog mbiru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee ak wooteem muy yoonam wii tuddewu ko al tariqa al mbakkiya tuddewu ko al tariqa tuubawiya tuddewu ko al tariqa al mahramiya waaye muridiya la ko tudde nga xam ni ñépp xaj nañu ci nga gis kon rahma gi yonent bi doonoon rahmatan lil alamin ba tax turu wooteem lépp xaj ci kadalika noonu la Cheikh Ahmad Bamba doone rahmatan wa nicmatan lil alamin ba turuk wooteem it lépp ak ñépp xaj ci loola doon benn misaal ñaareel bi yonent ya jiitu woon ku ci nekk yàlla jox na na ay mu'jizaat ay kaawteef ay kéemaan yoo xam ni ca nga convaincre woon say nit ba tax ñu nangul la ala sabilil misaal wa id aataynaa Muusa tis'a ayatin yàlla joxoon na Muusa juróom juróom ñeenti ay kaawteef yoo xam ni da ca jublu woon a convaincre Firawna dellu joxati isa wa ubriwul akmaha wal abrasa bi idnillah wa uxyil mawta bi idnillah ba kawteef ya mu ko joxoon yépp mat yonent yàlla saalix mu joxoon ko gëléemam ga yonent bu ne am lu mu la joxoon waaye yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla ngir namm gi namm ay mujizaatam sax fi ba dara du ko fi déjjateeti mu doon mujizaat xaalida mu def mujizaam wa gën a rëy ci ay mujizaatam def ko muy mbindam mii di alquran def ko muy mbindam mii di alquran ba tax yàlla défier mboolem ñamu jamonoon teel njëkk leen ci la in ijtamaat al jinn wal insu ala an yatu bi misli hada al qurani la yatuna bi mislihi abada la yatuna bi mislihi walaw kana baaduhum li baadin zahira défier leen ci alquran lépp ñëpp lot dellu défier leen fatu bi ashri suwarin min mislihi muftarayaat indi leen lu tolloog fukki aaya ci aayay alquran ñu lot mu dellu défier leen ci lu kemuk benn benn saar wa in kuntum fi raybin mimma nazalna ala abdina fatu bi suratin min mislihi benn saar ñu lot kon li yàlla joxoon yonent bi mu gën a rëy ci ay xeeti kaawteefam mooy alquran mii doon lu ñu yaxal nekk ci mushaf doon nekk ci kaamil gii ñu yor nga gis loola lu ko waral ngir mu doon kaawteef buy sax ba faw ngir mu mën a ànd ak àdduna ànd ak jamono gunge ko ba àdduna di tukki ndax dafa doon ni'matan wa rahmatan lil alamin Cheikh Ahmad Bamba yi ba awliyaa yi ñëwee ku ci nekk ñu lay nettalil ay kawtéef yu baree bari ku ci ne ci ñoom di ndamoo ay kaawteef yu baree bari Cheikh Ahmad Bamba def ay kaawteef yoo xam ni faw xana mbooleem kaawteef yooya waaye nag musuta ndamoo ci kaawteef yooya genn kaawteef rekk la masa ndamoo te mooy karaamati xattu yadi bil Mustafa al muayyadi nga xam ni xoolal mbiram mii namu mu niroog mbir ma lee yonent bi alquran la doon ndamoo ci ni mooy kaawtef bi gën a rëy ci bu ko yàlla jox mu doon lu ñu yaxal ci kaamil bii donte def na ay kaawtef yu bari waaye gii la ca daa ndamu nitu yàlla it ñoom it ku ci nekk amoon kawtéef woo xam ne daan nga ko ndamoo dëgg la bind nañu ko waaye ci nettali la yem ku ci nekk sa kaawteef ànd na yow dem jeexital yi desatu fi waaye Cheikh Ahmad Bamba ngir ni'ma gi mu doon ak rahma gi mu doon lil aalamin fas yéene gunge nite ba àdduna di tukki moo tax sunu borom defal ko lu niroog la mu defal yonent bi ba defal ko kaawteef wa gën ci ay kaawteefam mooy mbindam mii moo tax mu ne karaamati xattu yadi xafidtu ma siina an dafatiri fala takun an xidmatin bi ak yu mel noonu ida ida katabtu taza arshul maliki yooyu yëpp di ci feddali kaawteef gi gën a rëy ci kaawteef yi ko sunu borom jox te mooy mbindam mii te mbind mii sëñ bi nekku fi ci zahir waaye mbindam yi day ànd ak àdduna ba keroog àdduna di tukki ànd ak alxuraan gunge àdduna bi ba keroog àdduna di tukki kon loola dafay feddali nekk gi sëñ bi nekk ni'matan wa rahmatan lil alamin bokk na ci it ba tey lii feddali doon gi sëñ bi doon nicmatan wa rahmatan lil alamin te ay mbiram yépp mu koy tënk ci mbiri yonent bi sallallahu alayhi wa e mooy ni yonent bi bari woon na ay tur bari na ay melokaan waaye turam yooyu ak melokaanam yooyu gëkk ca gënoon a neex gëkk ca gënoon a saf mooy melokaanu Abdullahi jaamuk yàlla bi moo ko ci gënoon a neex moo ko ci gënoon a saf moom la daa gën a bàkkoo yàlla sunu boroom it fu yonent bi masa tolloo ci xaal boo xam ni doomu aadama musu faa yegg bu ko sunu borom di nettali dootul tuddeti mu dootul tuddeeti yonent bi turam dootu ko melalati melokaan yamu ko daa melale ndax yàlla dafa bokk ci ni mu fonke yonent bi musuta xaata banteeg moom ci yaa muhammad alxuraan doo ca fekk benn yoon yaa muhammad yonent yi weesu ku ci ne bu yàlla di xaatabanteeg yow sa tur lay jaar yaa nuuxu bit minha yaa aadamu uskun anta wa zawjuka aljanna yaa luutu inna rusulu rabbik yaa ibrahimu an qad saddaqta ruya yaa isa inni mutawaffika wa rafiuka ilay yaa muusa innani ana allahu xeet yooya yépp ku ci yàlla di waxal rek day xaatabanteeg yow ci sa tur waaye yonent bi yaa ayyuhan nabiyyu la wax yaa ayyuhal rasulu yaa ayyuhal muzammilu yaa ayyuhal muddathiru musuta xaatabanteeg moom ci yaa muhammad waaye nag fu yonent bi masa tolloo ci xaal woo xam ni nit musu caa toll bu yàlla di wax di xaatabanteeg yonent bi foofu wala mu koy melal foofu du ko melalati ci yenn ci melokaanam yooya lu dul melokaanuk jaam bi subhaana alladi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid al aqsa ndax fa yonent bi yeggoon mbindeef musu faa yegg musu faa yegg summa dana fa tadalla fa kaana qaaba qawsayni aw adna foofa yonent bi yeggoon ba ko yàlla di nettali da ko melale melalatu ko ni yonent la melalatu ko ni ku ñu solo la la mu ko daan dàkkantele yépp da koo teg waaye dafa ne leen sama jaam bi ngir nit ñi mën a xam ni ab jaamu yàlla rekk la ak fi mu yegg lu mu kawe kawe ba mu ba mu ba mu tolloo ci jinne yi ñëw jébbalu ci moom loo xam ni kenn mësu koo am ci lu ko jiitu yonent yàlla Suleymaan dëgg la jinne yi ñëwoon nañu di ko xidmaal waaye doonut woon ci seen coobare doonut ci seen coobare da nootoon gëmuñu ko toppuñu ko waaye cig nooteel lañu nekke woon ci keppaaram yonent bi nag jinne yi nangul ko ci seenu coobare wa innahu lamma qaama abdullahi yad'uhu kaadu yakunuuna alayhi libada kon dañu nangu ci seen coobare ba sunu borom di nettali loolu nga xam ni kenn mustaam lu mel noonu sunu borom abdullahi la ko la ko la ko melale foofu moom la ko melale foofu eh, beneen bi mooy ci alquran wa in kuntum fi raybin mimma nazalna ala abdina kon ñett yooya la moo gën a fés ci li yonent bi masa am te ab jaam musu ko am ci kaw suuf nit mbindeef musu ko am te fépp ci ñett yooyu sunu boroom jaam bi la koy melale nga gis sëriñ Touba lépp lu mu sunu borom defale ko ko ci yoonu géejam wii lépp ci la ko sunu borom defale ci la yegge ci ndéem topp mën nañ koo ko tuddee ci la yegge ci topp ci ay mbiram xam ni yegg na foo xam ni lépp lu wàll yu làqoon làq na ba yegg nag foo xam ni kenn mësu faa yegg ci nitu yàlla yi ba muy nettali loolu ba muy wax bi la mu bind ci yoon woowa nga xam ni ci la léppam mate te muy asiiru lu mu fa wax shuhuri wa ayaami gadan li shawahidu bi anniya abdullahi wa huwa shahid nga xool waliyu yi bu ñu masaa toll ci seen seen seen seen seen topp ci fañu fañu fañu fa nga xam ni gisatuñu ni kenn féete na leen kaw ku fa masaa toll sa bopp rek ngay gis gis nañ fi ñu fi wax qadami fawqa raqabati kulli waliyin lillah wali yépp maa leen teg tànk sama tëstan wii teg naa ko ci seeni loos dégg nañ ko fi ba tàyyi ci ay ay awliya wu ñu koy wax ku ci nekk bàkku nga ci sa façon waaye sëñ Tuubaa ba mu demee ba toll ci bàkku la mu bàkkoo mooy ni ab jaamub yàlla la ab jaamub yàlla la bu ñu fàtte ni nag yàlla boo bàkkoo ci xaal bu la jàppee nga bàkku lu baree bari dana dalay recadré waat indiwaat la segam yonent bi la la delloo si waat ndax yonent dafa am ñaar yu ko mas genn gi mer la woon mer a mer ba mer bi def ci moom xaal mu addu adduwin ko xam ni suñ boroom delloo si waat ko ca xare Uhud bañ ko gaañee daaneel ko ca ca kàmb ga damm bëñam gaañ ko ci bopp bi deret ji sar xaal boobu ci mer jàpp ko ba mu ca jógee la mu ca teg kayfa yuflihu qawmun bi yow ñi xaañ seen yonent naka lañuy texe ëllëg yàlla àddu ne ko laysa laka min al kuy texe nag ak ku du texe nekku ci solo gis nga suñ borom da ko doon delloo si ndax mer na ndax réaction boobu la ko waral mooy mer gisatu lu dul boppam yàlla delloo si ko laysa laka min al amri bisit bég na ndax xare Xunayn ba leen noon yi dàqee ci njëlbeen gi ñëpp tasaaroo ba fukki nit ak ñaar rekk a des ci wetam ñëpp daw noon yi doon ay junni engagé leen mu tibb suuf sànni leen ko suuf si mel ni ay balu fett ci ñoom suuf si mel ni ay balu fett ci ñoom ñu reculé waat dellu ginnaaw keroog bég na bég na ngir loola ka sunu borom defal ba yëkkati tànkam di dóor ci suuf ana nabiyu la kadib ana bnu abdil muttalib yàlla ne ko nag du yow wa maa ramayta id ramayta walakin allaha rama gis nga toujours da koy delloo si Sëriñ moom comme ni ma koy waxe toujours li gën a ci moom ngir ti tey tey feddali kawnuhu lil alamin euh, mooy ni ku war a doon rahmatan lil alamin sa lépp dañ koy mën a expliquer sa lépp dañ koy mën a expliquer ndax sëñ Touba fi mu toll ci euh, yàlla ci wàllu wilaaya ci wàllu xam-xam loo ca vérifié ci zaahir danga gis ni da cee da cee sonn ba ba yegg ca dafay da cee sonn topp ci daj ci lu ne ba yegg ca la mu yegg ndax sunu borom. ay mbiram ay atteem di ko jaarale ci zaahir da koo gën a neex lu ne mënoon na ko defali jaamam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy gàddaay suñu borom man naa yëg mënoon na rek xëy mu yeewu jee mu yeewu waaye da ko jaarale ci ay yoon def ay taxtiitaatam teg ay plan wut ku koy ñu ku muy àndal fàggu ay ñaari gëléem xaswaaw ak atbaaw ku leen di indil lekk ca xunt ba di asmaaw doomu Aboubacar ku leen di gunge doon seen git Abdullah ibn Urayq Urayq e ki leen di sàmmal seeni gàtt Amir ibn Fuhayra te suñu borom mën noon naa xëy rek mu yeewoo ji ma ki la jëlee fii yóbbu la ba ila sidratil muntaha ci genn guddi nga nga del siwaat kooku mënoon na booy gàddaay mu jekki-jekki rek yàgg sa njaboot ak ña nga àndal yépp rek mu def leen rek ngeen yeewu jee Madina waaye dafa bëgg mbir yi di jaar ca na mu tàmme di jaarale ay mbiram Sëriñ Tuubaa nag la mu da koo fa mu yegg da da cee sonn da cee da koo daj da koo faggu da cee nekk ci anam goo xam ni kenn musuta defe nu mel noonu euh, looloo tax ay mbiram lépp mën a man nit man ko expliquer mu leer ci la mu daj ci njàng ci la mu daj ci xeeti jaamu yàlla ci la mu daj ci xaj ci taxamul ay xeeti coono lépp rek sunu borom rek tax lépp rek sunu borom rek tax lépp lu ñu sunu boroom sant li mu ci def kenn mënu ko cee def dama toog ci jataay am ñu fa nekk ci jataay ba ku ci ne ne sëriñam la mu indi la mu def moo extraordinaire moo indi lu bees ci lislaam dafa extraordinaire ku ci nekk di expliquer li sa sëriñ beesal wala li mu indi lu bees lu amut woon ci lislaam mu dugal ko ci ma yem ci jataay bi amoon ci ay murit yoo fa nekkoon bi bi ñu waxee ñoom it ñu ñu bëgg a lu mel ni la ñu di wax ne sëñ bi moo indi lu bees ci lislaam ma ñëw may leen yegg ci yem ci loolu ma ne leen sëñ bi day indiwul dara lu bees ci lislaam sosul dara lu bees ci lislaam li extraordinaire ci moom euh, mooy ni dafa fekk alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk fi ndigali sunu borom ak i tereem ndigali yonent bi ak i tereem mu def ci ndigal yooya kenn mënta def bu ñu sasee benn mu def junni moom rek a ko ma sama buñ ñu teree am yuñ ñu daganalal yooyu ñu daganal mu bàyyi ko misaal ca bañ ko ne da ngaa dem a dégg da ngaa bëgg ndox mu set mu ne ndax ñu ngi may askane dana bëgg naa lenn lu dul yonent bi ndax ñu ngi may askane ci bëgg lenn lu dul alquran ndax ñu ngi may askane ci bëgg lenn lu dul yàlla bis ni tey duma ko naanati kon naan ndox mu sedd dara nekku ci waaye ngir tajarrut gi mu tajarrut ba soxlawul ñu askane ko lenn lu dul boromam ndax nag rahmatul lil alamin loolu tax na ah mu xaraamal ci boppam ndox mu sedd bañ ko indilee guro waxu ko ci lu mel noonu tax mu bàyyi guro kon sëñ bi sosul lu bees ci diine fi yonent bi tegoon tànkam la teg tànkam alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa la tegoon ndëggoom waaye cantaane gu ne la mu ca def kenn musu ko cee mën a def la kenn musu ko cee a def luñ ñu tere na mu koy soree di ko bàyyeeg lépp lu jege loolu kenn musu koo mën a def kenn mësuta mën a def lu mel ni li mu def loola kon dafay wone ni eh, niama la goo xam ni ku ñu war a mën a expliquer la boo xoolee it bariwaat na nitu yàlla yi ñu tollu ci xaal xaal goo xam ni dana leen dana leen tërëfloo dana tax ñu wax wax joo xam ni boo leen tegoon ci nattuwaayu sharia sharia dogu ci ñoom ñu rey leen dañoo rey xallaaj doon bëgg a rey ibnu ibnu arabi afifu din talmusaani ñoom sadru din alqawnawi ñoom ñëpp sharia dafa addu ci rey leen ñii rey nañ leen ñii mujj nañoo rëcc ndax lan xaala leen daan jàpp bu ñu tolluwaan ci xaal ba màndi xoolal abu yazid al bistaami Tayfur ibnu Isa ku dem aji màkka di wër ci kaaba gi wër benn sawtu ñaar ñetteel ba nga dellu ñibbi ñibbi fa nga ñibbi Bagdaad ñu ne ko lu tax mu ne day wër kaaba gi kaaba gi di ko wër loolu la mënul comprendre ba tax ba loolu weesoo ay taalibeem ak ña ko fekk ñépp gisoon nañu ni daawul wax subhanallah ci ay azkaaram subhaani subhaani la daan wax tudd naa sama sel kon kooku xaal réeral na ko ku ko tegoon ci sharia sharia addu ci moom rey nit yàlla yi bari nañu ñoo xam ni xaal da leen daan jàpp ba ñu wax loo xam ni bu xaal ja seddee ñu weddi ko waaye sëñ bi istiqaamaam taxoon na xaal musuta tax mu tërëf xaal musuta tax mu dérapé loola nag li koy layal mooy ku musuta naan sàngara boo ko joxoon liitaru sàngara boo moytuwul da koy jag-jagate yóbbu ko mu ñibbi waaye am na ñoo xam ni teg genn guddi fukki liitar naan ko yëngalu leen ndax lan dañu caa yàgg kon sëñ Tuubaa dafa màndi ba màndi ci sunu boroom ba xaal mosu koo mën a yëngal ndax lan dafa royuwaay la wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin ja yàlla waxoon yonent bi def yonent bi muy na def muy xéewal ndax diineem lislaam ji alquran ji daa war a gunge àdduna ba keroog àdduna di tukki naka noonu Cheikh Ahmad Bamba mu jaddit la bi maanal mu jaddit taj di damit ak yeesalam diine ci anam yépp la ci anam yépp la ñii yeesal nañu diine ci xam-xam nañu diine ci wilaaya ñii wee yeesal nañu diine ci infaaq fi sabilillah waaye moom dafa yeesal diine ci mboolem anam yi yeesal diine ya loola yépp di feddali di saxal ni ni'ma la ak rahma la goo xam ne bu tukkee ci sunu borom la subhanahu wa taala kon Cheikh Ahmad Bamba royuwaay la ni'ma la rahma la ci dafu lépp loo xam ni madarra la ci ci ci ci ñoñ ci ci xeetam lépp loo xam ni madarra la ndax wax nañ ci njëlbeen gi ni ni'ma dana tekki jañal la aw lor waa it dana tekki xëccal la ay njariñ Sëriñ Tuubaa nag moom rek dafa gàddu lor gàdduy coono féete woo ko ci anam yu bare bare bari ngir rek nit ñi mën a am jàmm bu dul woon moom ñu dooni ñag comme ni Ivoiriens yi doone ay ñag bu dul woon moom ñu dooni ñag comme ni Béninois yi doone ay ñag waaye moom raxma la ni'ma la gu tax sunu borom musal ñu ci xeet yu mel noonu e, waxal na ko boppam moom rek a demoon liggéeyi. bismillaahi rahmaani rahiim. wa sallallaahu taala wa sallama wa baraka ala sayyidina mawlaana Muhammadin wa aalihi di jiital ci yooyu siyaar bi sëñ Amadou Mahdoum di nuyu itam sëñ Cheikh Abdou ak mboolem mbokk yi teew di siyaar bu baax ak maam Cheikh Ibrahima Fall yi nga xam ne teew nañ ci yëpp di sant bu baax sëñ Abdou Hassane ci waxtaan bu am solo bi nga xam ne jaarale nañ ci bu baax a baax a baax mooy sëñ Cheikh Ba Cheikh Ibra Fall nag moom day mel ne man su naa wax nag fayu sëñ Tuubaa ci na mu defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dafa sëriñ bi soxla dundal yëpp yëpp mu jeexal ko ci liggéeyal sëriñ bi sëñ Bachir ndax la ci lu bari ba muy ba mu bi demee ci kii ci la ko taxante ma taw fa mooy di négocier tubaab njël rek tuuma yi teg ko ba ñu dellu si ba ñu sëñ bi ñu ko jëlee ci géej gi nga xam ne yooyu sax sëñ Bachir nee na moo tax tubaab yi tàmbalee nag seetaat mbirum sëñ tubaab kon loolu bokk na ci li sax ñu dellu si bi la ba ni Serigne Touba dañuy gànnaaw Cheikh Ibrahima mbir na ni moo moo ci am tubaab sama sëriñ bi ñu dellu si nga xam ne loolu moo sàmm tubaab yi jële Serigne Touba gànnaaw dellu si ko ci réew Cheikh ba ci boppam këyit nga xam ne ca lañ ca lañ jox leen ndigal mu del si moo ko yóbbu gànnaaw moo yóbbu sëñ Tuubaa xamoon sëñ Tuubaa lool nag xamoon ko lool ba li ko xam ne fu mu fu sëñ bi mas a dajeeg taalibe rek day mel nañ daana daana wan taalibe yi Cheikh Ibrahima melokaanam nga xam day mel na day jubloo sëñ Tuubaa day jubloo defee noo xam ne day jàngal loo Cheikh mu jàngal ko taalib ci misaal nett bu gën man dañ gën a am ci dafa amoon koo xam ne dafa ñëwoon ci sëñ Tuubaa di sàkku ci moom am buur ko yàlla am buur sëñ wuti loo ko jote ci maanaam loo jote buur ngay sàkk moo dem ca marché wut fa am mu tam ko jaww ko indi jox seen fekk mbooloo baa yi doon Cheikh la nga ko góob nee na ba sëñ bi yëkkatee ba ko joxee sëñ bi yëkkati moom di ko wàññi jox di xool daal laaj mbooloo lu ngeen koy xayma bi ñu ko xasee laal mbubb mi amatul la xam ne woon am na ci mag ko ci ma ko déggee mu natt dama ne ah ma koy natt di faram-fàccee ci man yi seen toppatoo seen bopp dafa am bés bu jàng tasa leen kon borom xam-xam la woon ci ci lu xaaj la bokk bu xam-xam-xam ndax yu am ne waram jàng tasa leen ba agsi ci benn béy wala ma dëkk karam la doon jàpp béy bi xam naa na ko bi rab di jàppal muy baamu béy di ko bi ne ko xanaa lu a defar dafay xëy na am maanaam moom mën a caal la xaw a dugal Cheikh Ibrahima nag jóge fa mu nekk ne ko Mbàkke moom mii moo tax defal nee na kilifa boobu nee na bis boobu moom moo nekk bopp ne bu ma defaloo man jàpp naa ne bis boobu ca laaj buñ ko tuddoo jëf ko ndax ci tënk bi déglu incha allah wax bi dañoo gàttal waxtaan yi ñoo ngi sant ñëpp di ñaan suñu borom ban di ko gërëm te loolu ko daal ci barke si wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu maymunata maymunatul mbakiyu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 بالطلب منه كما قال رضوان الله عليه رام رسول الله من إلهي كوني قديمه وعبد الله وبعد نعيكم تأية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokki jullit yi bokki taalib yi noo ngi leen di jéggulu tey nuyoo ci turu xalifa général de Baye Fall Serigne Cheikh Jëmb Fall di ko jottali ab siyaareem ci Cheikh Mamadul Muntaqa Mbakke xaadimu rasulillah ibnu Cheikh Mamadul Basir di siyaare it nag Cheikh Mamadul Mahfous ibnu Soxna May ibnu Xaadimal Mustafa ak magam ju baax ji soxna yi ak mbokki mbakkeem yépp di xam le ni bis bi rëy na ci Cheikh jëm Serigne Cheikh ak njabootam gi mu yebal muy rakk di doom di sët di jarbaat di taalibe ndax wax na ni ku toll ni Cheikh Abdou Bamba Cheikh Ibra ëttiwawuloon lu dul moom nga dem bay def ci moom lu bàyyi ko ci sa way juróom mag wa te màgg lool di dundal bis boo xam ni taawilaan ak taradudun bari na ci muy laylatul xadri borom xam-xami li coow bari bari bari nañ ci ay wuute lool waaye téewul Sëriñ Tuubaa mi yàlla defal li ko baax ki jëkk a wax léegi ci li Sëriñ Tuba indi ci jamono muy yërmande ak xéewal kooku bis benn bu ñuy taawilaan ak taradudun te néewul nii la te dina yàllaa ma ko wax mbaa yonante bee ma ko wax xam ngeen laylatul xadar moom ñi gën a ci fukki fan ak juróom-ñaar lañu koy jàpp jàppe ko bis bi badar amoon waaye sëriñ Tuubaa moom dani lakka sunniyatun sa akun rayas xàkka jun sa akun maes waaye meneen kàngam nag ci biir yoonam bi ci yeesal gi mu yeesal lislaam mi ñu naroon sàggane muy ponkal mu mag ci biir waa këram ci taalibe yi muy Aliou Serigne Aliou Seck ca Saalum moom nee na Serigne Touba ko feeñu guddi ni ko tënke naa ko nii waa tënkale naa la ko nii yow mu jóg bind ko ni lusiyatun salahakun larya laryasun xamis ka jum jumkatun bisa akun la bi xawli ham kasun muy ren di kajul ci mbindum sëriñ bi ñu jàngale nag si ahmad maam Cheikh Ibrahima Fall Baol Mouridine ci bis bi ñu def ngir waaje na ko bis bu màgg boobu xam naa koy def dara lu Sëriñ tubaab fonkoon di ko waajale Cheikh Ibrahima Fall war ngaa xam ne dina mel ni nga bëgg ndax Cheikh Ibrahima daa doonul kenn dong sëriñ saalihu mbakke la taala anhu danaa wax ne bàyyi Cheikh Ibra ak ku tedd ke du ñu ñaar kenn kee sëriñ saalihu mbakke ko wax te li sëriñ bi wax léegi ci yërmande jooju ak xéewal yi ci ëppam la ko sëriñ Tuubaa defoon bu duloon Cheikh ra kenn du ko mus Cheikh Ibra reg regaan seng yaayu sëriñ tuuba xam ni mu koy toppe ba buus mi bënn mbaa ñu tekki ko yërmande ji daal di feeñ dikk bi mu dikkee nag ni mu def moom Cheikh Ibrahima Fall ci nu ñuy toppe ku mel ni sëriñ Touba ba mën a am ci moom lu mel ni li mu am ba tudd Babul diina du lu ñu réunion duñu lu ñu bindi leetar defuñu ko ci tele kenn jàngalewu ko ci benn école te Cheikh Ibrahima mooy Babul diina lu yàlla dogal la nit ñi nangu koo wax te duñu ko sañ a bañ ñu nangu ko ci seeni xol di ko jëfandikoo nit ñuy toppee sëriñ Touba ba man koo jëriñoo Cheikh Ibra ko keryal boppam kenn jàngalu ko ko dul yàlla borom sëriñ Touba bind ko di ko jàngale ngir bëgg nit ñi xam kan mooma am na ko wax léegi ni Cheikh Ibra ko xamoon sëriñ Touba la waaye sëriñ Touba ko xamoon Cheikh Ibrahima Fall la ndax jàngaloo na nit ñi ci moom ba tàyyi ngir ñu xam kii mooy kan ciw defee nam Cheikh du Falilou Fall moo ma ne te ba ma koy wax ñii ma àndal ñi nga fa toogoon muy weeru koor ndab yi dafa taaje mu ni ma waxal ak murit yi ndab yi door a dem ci seen borom mu jël wenn bayit ci muxaddimaat wax ko dama ne ñokket ni kàllaa mii wa niyaati wa fixli tawajjaat ila man kafaani suu'a wa durra wa sakka sëriñ mu daamin tafaal moo ma ñoddi ni ma sëñ baara ma ne ko faal mu ne ma mbindum ko tedd ka la Cheikh Ibra yi jëfe jëfi Cheikh la ko tedd kay bind xoolal nag yéen ñi jàng xam ngeen ko ma firi ko ci ñi mel ni man nit yett képp la am amul lu ko ëpp li ngay wax ak li nga jëf ak li nga yéene te mënoo ko li ñuy wax tamu am njariñ ku dul yonant bi ci mbindeef yi Serigne Touba la ëppi wax gën laa bari la ëpp njariñ li ñuy jëf fa mu doon jëfe kenn mënul asaka ja li ñu yéene ci njariñal doomu aadama bay wax irham jame alwara kenn mësu ko cee fekk Serigne ne lépp laa dank benn yoon jox ko yonant bi addiya ilaa man kafaani kon ila rasulillahi rek la mu ne bi ma ko joxee lépp nag am na lu ma defal kafaani soo a wa durra wa sakka fegal na may ñaaw téef lu ñaaw lu ne def nañu ma ko waaye bu ñu noppee rek bu pënd bi wuree ma gën a rafeti mbir man lu bon lu ne def nañu ma ko bëgg a jël sama bakkan juróom yetaat yu manqué tuuti ma ànd kook samay noon bàyyi ay noon gannaaw di rombi noonu ñii ma jóge néew ma leen ñaanal leen ma maa leen ñaanal ñi ma romb bëgguñu ma xàmmee leen dañoo jàpp ne dañuy or alko ñii ma àndal ni bu ñu ma jekkoo gaañ ma ñii ma jëm ne bu ma ëgsee ñu lor ma ñii ma àndal néew ma leen fu nu jëm néew ma leen na noppalu jàmbatuma mar jàmbatuma xiif kenn pikiru ma naanu ma fiy kompin ma xooju ma fiy reen kenn musuma foroote kenn ma yeewu ma ciy nelaw monsieur suma tuuf ci wànneen kenn duma masa yee ciy jàng wëlbati ko musuma jàng ba gàkk may bind te musuma gag ñuy defaraat te musuma julli di tiim te musuma jamuñ ma dem ba jekkoo ñu tiit dafa ne damay jekkale ma jéggalee dellu si waat di def la ma doon def kooku mooy sëriñu Cheikh Ibrahima Fall bi ñu tudde bis bii tey moo tax mu ne kafaani su awa durra fegal na ma ay lor mu ne fegal na ma sikki sàkka sikki sàkka ñaan baxam la damay ñaan baxam xam dina am wala du ma am damay def baxam dina baax wala du baax sëriñ Tuubaa ne loolu musuma dal isaa katabtu aw xaraxtu arfa ostu mu nan tóoda saakal arfa bu ma bindee rek mbaa ma jàng araf wi ma bind mbaa ma jàng ko arafa la ko tax a jóg am naa ko bu mu mat bu dee lu may laaj jot naa ci bu dee lu may dàq dem na te dootul dellusi kooku mooy sëriñu Cheikh Ibrahima Fall bi ñu tudde bis bi tey Cheikh nag day koo xam ni sëñ bi wax na ko léegi julli ak woor yàllaa ko digle bu ci mere kenn ki defe ni man na ko na fexe ba sàmmoonteeg julli ak woor julli ak woor dafa am lu ko jiitu jàng la ñu wax atlu ma uhiya ilayka min alkitab la wax jàngal bare waa na ñuy dugg ci jàkka ji wallaay xàmmewuñu farata ak sunna te duñu ko laaj te ilimaan yi ku leen laaj dong lañu ñu bëgg te nag war nañoo xam ni def loo xamul te tey ko ak mooy yàlla la borom lax dëri dani wala yaxilu an yafala fixlan ata yaxlama ukkuma daa i fii du dagan benn jaamu bi yàlla di def ci wàllu jaamu yàlla lu mu xamul lu ca yàlla atte dëkk ci julli tey def lu arab nag mat naa mooy tali ko ba mu ne ba nga xamee ne xam nga ko nag ba laaj ko laaj nga ko xam nga ko mais am na beneen problème inna salaata tanha anil fahsaay wal munkar julli day tere def lu ñaaw ak lu ñu sib boo munto bañ a def yu mel noonu bu yóbboo nga bàyyi fi julli jullee ko li nga am tam moom ko sàkk ci jox sëriñ bi ci sa teeyu bakkan am nga doon liggéeyalal sëriñ bi sëñ bi munta ñàkk mbaar munta ñàkk ab lal munta ñàkk fu mu toog mun ta ñàkki basang mun ta ñàkk satala mun ta ñàkkam ndox yooyu yëpp taalibi yi koy andil sëriñ bi sëñ bi am jot mën a jaamu yàlla te sëriñ Tuubaa sëriñ Fallou Mbacké sëriñ Fallou Mbacké danoon jaamu yàlla ci jaami yàlla yi yàlla ci jaamu yàlla yi nag ki gën a màgg ak jaamu te yàlla nangu ko te ñëpp man koo waat mooy Seyxul Xadiim Cheikh Ibrahima Fall ci sëriñ Bamba la doon jaamoo yàlla lu sëñ bi ma sa itteewoo te nit mënu koo ñàkk rek Cheikh Ibrahima defal na ko Serigne Touba ba fi mu ne moo dal njabootam gii amuñu itte ci lu dul lu ñu ne diw Mbàkke bëgg na ko ñu bàyyi seen itte ñoom bëggatuñu ko moom ñoom kooku rek lañ koy yóbbu kon loolu bu ñu fekkee dañu am bis ñu tudd ko maam Cheikh Rafal ci bisi Serigne Touba yi mu jaar ci Soxna May man de lii may bëgg a wax Soxna May Mbàkke ma ko wax ca Daaru Wahab ndax dafa am lu nu daje ca ndakaaru mu kontaan lool gërëm ma ni ma loo bëgg ma ne ka ah man ne mbàkke ko faj sama aajo la bëgg soxna may ci boppam ni ma daaru waxaab nga ko mën a ame ma ne ko ah, kon de kañ laay ñu mu ne ma maa nga fa jëm ci ginnaaw ëllëg sa laa dem fekk fa néeg ba mu recevoir an fa la mu yóbbu ni ma toogu bi ci la Senghor toogoon moo a nettali ci làmmiñam daane maa xam nga ne Senghor ku yewu la te am baatin ma ne ko ah mu ne bi ko sëñ Fallou yebalee fii fi man dama wut butéelub liminaat ber ko ni ñoom day nee nañu du ñu lekk lu ñu seetul waaye butéel bii de bu ko naanee te seetuñu ko réew maa réew maa ngi ciy loxoom ne ba Senghor agsee ba toog moo yuutul boppam butéel bi ubbil ko boppam naan ko ni soxna si may ma xottu dama koy barkeeloo loolu soxna May ma ci làmmiñam te soxna bay xam ngeen mooy Serigne Touba te jaan amul jigéen ju ci matt rek lu luggay tax nga mu ci yow nag moo ci rawoon moom faj na fi aajo ba tey kon soxna euh, sa sëñ Madou Mahfouz noo ngi lay ñaanal ci sa darajey wayjur wi sa darajey maam yàlla yàggal la fi te wéral la sunu bokki bopp yi di sunu sangi bopp yii nga xam ne Cheikh Ibra kese lañu sëñ Cheikh Jëmb Fall yabal leen muy rakkam yi ak doomam yi kii mooy sëñ Cheikh Ndiaye Mbeng présenté nañ leen ko ak sëñ Saliou Saliou Far Sow ak seeni rakk waaye sëriñ Fallilou Fall jëruñu sëñ Modou Aminta Fall nag la sëñ Cheikh Jëmb waxan ci seen kanam te Saliou Far Sow ko wax ci làmmiñam sa sëñ Modou Fallou mii mooy sama jëwriñ ci yoonu Cheikh Ibra bi sëriñ Fallou yi daal tànn Moustapha Fall Fallilou muy jëwriñam kon ñii fi toog kuy dellu gannaaw nekku ci li ñu leen màndal màndi nañu ci ba sol ci ay mbubb liggéeyal sëñ Tuubaa képp ay seen dite kon na ngeen leen ñaanal yàlla may leen ak man noog ñoom ñu yàgg fi lool te fu ñu geestoo gis nu sëriñ Cheikh Jëmb Fall yàlla na fi yàgg te wér ak rakki boppam yi ak taalibe yi kon maa ngi yemale fa wax bi tey jéggulu bu fekkee wax naa loo xam ne bokkul ci lu ngeen bëggoon na dégg ngeen baal ma ko rek nag taxane moom waxi Baay Faal demee noonu kon asalaamaaleykum wa rahmatullah auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Serigne Cheikh Fall ñu ngi lay nuyu ci turu Cheikh Mouhamed di nuyu mbooleem doom yi te di ràññee ñi nga xam ne yu bare bare kër boo fa ñëwee ci sëriñ loolu nee naa ko si Mahfouz nee na guddi gi ci koor gi lañ koy def te gis na liggéey bu rëy bi nga xam ne yéen a koy liggéey lislaam ci weeru koor ndax ñun de bañ xam ne ba léegi képp kuy war ci dëkk tudd yàlla di màggal weer wi ci anam boo xam ne képp boo xam ne am na loo xam ne dina ko def ci weeru koor rek maam Cheikh Ibrahima Fall am na ci kon lii bu ñu leen tuddee tuddee ko maam Cheikh Ibrahima Fall dara jëlee mu war a yàlla na war na ndax soxna si lu dul Sëriñ Tuubaa du mu ñëw tool taalibe Sëriñ Tuubaa dong mën a doon toog nañu fii bis mu xëy sol mbubb maa ngi toog kenn nett li wuma bind ci taaliba Cheikhul Khadim bindu Cheikhul Khadim tilimisanu Cheikhul Khadim yor yor boobu day toog ku nuyu rek mën a tey jii de damaa ñibbi ca soxna Astu Daawa tey daal kan la kon te léegi fax léegi sëriñ Abou wax ko kon képp koo xamante ne bii ak taalibe bi ñor na la yitteel na la foog naa ne amel na Cheikh Ousmane Dukal te loolu yi moo taxoon Sëriñ Fallu ñu tudde ko bii mooy ci Lamp Fall kon foog naa tur wi lu yell la lu war la lu ngeen ñey war te maam Cheikh Ibrahima dafa taxawu Sëriñ Tuubaa ci ak nekkam dañu sëriñ am ma junj léegi dëgg la man xam naa lu ci bari ndax damay faral di gëstu leneen loolu xam-xam bariwul boobu sëriñ bi sax bi sëriñ bi nekkee gàmmu en 1902 tubaab bu ñuy wax Carbo di wut député ca Ndar booba ku dul ab tubaab mosoo falu ci réew mi moom mu ñëw di ab métis bàyyi tubaab waaye waaye yaayam nit ku ñuul la ñépp ne mën na gagné ay élection bu ñëw seet si maam Cheikh wax moom mu ne ko day man naa laa fal wante boo faloo dañuy ànd sabablu ci sama sëriñ ba dellu mu ànd ak moom ca mu ñaanal ko waaye yëmu ca xaalisam la jël finance mbooleem ak campagne ba mu gañ élection bi keroog moom gañee journal yëpp dañu xëy bind ne tremblement am na Sénégal ndax kenn xalaatutoon ne ab tubaab war a su ko mën a gañee fii ci réew mi ci koo xamante ne bii am na dara ci dugub ñëw kon maam na bi sëriñ bi génnee àdduna li may wax itam firnde leer laa am am na bis ñëpp xëy toog di ko ñëpp di ko xaar ba mu dikkee moo njëkk a joxoñ Cheikh Mouhamadou Moustapha ba mu ko defee ci la ñëpp def nañ def ba sëñ Moustapha ko di sëriñ Touba ba ca jiiroo yi moom kon taxaw na sëriñ Touba ci dama jël sëñ Modou mii di mag waaye ñun dañu ndaw doon ndaw am na loo xam ne fekk naa bu dund ak soxla si bu dund ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ndax doon ko def ndaw demaguma sax laa yor ànd ak soxna si ñu dem fii Pallel mooy seeti Cheikh Hassane Fall dafa mel ne tey ci man dama ko tuuti naa waaye dama leen fàtte ba loolu la jàllee gis naa itam lu mu seqoon ak Seydou Sakho nga am ab taawam ci kër gi nekkoon muy soxna si Fall ba muy liggéeyal Sëriñ Tuubaa ba ne tey jii de nga nga maam Cheikh Aliou Tass dana ñëwoon Cheikh Mouhamadou Bamba tey damaa bëgg rayal Sëriñ Tuubaa baax ñu ne ko ah soxna si baaree bu ko rey day àtte àtte bu ko rey ndax dañ koy jënd mu ne man daal tey naa nga rey ay juróom li nga rey nag tey baal naa ko foo naa leen baax boobu keroog te ku ko indil surtout macha allah si wax léegi xamante moo daal jiitu ci kër gi kon loolu dama fekk nag ci jamono soo ci dund ak yéen kon bu ñu fi joxee cër cër boobu foog naa ne lu war a am la kon sëriñ bi yu rafet yi nga xam ne maam Cheikh seqoon ko ak maamam Ndiaye soxna si seqoon ko ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall kon loolee moom la delloo si bàyyi naa famille bi ngi ni toog sama ginnaaw foog naa ne kër soxna seen mbir bu fa nekk waa ko suñu waxtaan Fall nga fa def boo ci gën a naan nekk ànd ak ñoom ñoom ñu fekk mbir ba ba tey jii kenn soppatu ko dañ ko yees na bëgg rek moo nekk koy kon yàgg gën a liggéeyal soxna si yàgg nga xam ne mooy guddi gi njëkk ci waxtaane Laylatul Qadr Maam Cheikh Ibrahima Fall lañ koy tuddee woo fi mbooleem njabootam sàmmoonte ak ñoom leen ba ñu xam ne liggéey bu rëy bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey Sëriñ Tuubaa yi yëg nañu ko te safoo nañu leen te taalibe yi ñu ñoom ndax njabootu soxna may lu dul ak taalibe yi ñëw leen ndax soxna si ci lu dul borom ba fi nekk bis bu set bi fàttali ko bis bii bala mu cee def laajal ko ci ndigal te wax bu ko nee nañ ko bàyyi keroog foofee lay jàpp kon lépp luñ ko def Sëriñ Tuubaa lañ ko defal ndax bésu alxuraan la te alxuraan lañ ci teral bésu alxuraan kon bésu Sëriñ Tuubaa ndax moom lañ ci liggéeyal moo naa ñu tànn ñoo xam ne ay tànn lañ ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa teral leen ànd ko ñoom jaajëfal leen sant leen gërëm leen kon sëñ bi loolu yi moo tur bi ñu di leen yóbbante nag ci Serigne Cheikh Diop ay cant cant yoo xamante ni am na fu mu tàmbalee te fu mu ndax ni ngeen ñëwee rëy na ci njabootu soxna si ndax moo leen njabootu Pape Cheikh Fall yi kenn desul kenn desul ñoom ñëpp dikk nañu kon loolu yëg nañ ko am nañ ci ñu ngi koy sant di ko gërëm di ñaan rek. liggéey bu rëy bi nga xam ne yéen koy liggéeyal sëriñ bi sëriñ nangu ko te leen ci lu kawe seen jot te dimbali leen ba man di wéy di doon ay roykaay ci bépp murit boo xamante ne bii am na pas-pasu liggéeyal sëriñ am na pas-pasu ak taalibeem am na pas-pasu àgg fu kawe ci ak taalibe di leen gërëm di sant bi ñu ngi lay sant wax ji am na solo niveau na foog naa tey li nga ko ci jël bu gàtt na cee jariñ di sant ki nga xam ne moo di sëriñ sëriñ Abo moom itam ndax moom sax wax dëgg ko fekk daf ñëw rek mën a mënul ñàkk a jël sànni ko ci. maam Cheikh Ibrahima Fall ak ñi nga xam ne ñoo doon taxawee jataay yi moo di sëriñ Cheikhouna ak sëriñ ak ñoom Baye Cheikh ñoo nekk ci seen ak mboolem yi nga xam ne ñu ci comité scientifique di sant mboolem presse bi ci bi nga xam ne teew nañ dinañ jox fii ba ca na ay conférence yu mel ni xam ne dina ko def suba danañ waxtaanee ñu gën a leen xam ne buñ àjjuma ja danañ waxtaanee loo xam ne ñu ngi jëm ci wàllu xasida yi naka lañ ciy mën a jariñoo buñ ci kaw dinañu waxtaanee ñàkkum naka la ci ñàkkum daara mën a indee bu buñ ci jógee itam danañ dalalaat ci jotaay bi ñi nga xam ne ñoo njabootu soxna ma nañu Kunta ndax ren ji jotaay bi ñu defar waa kër Sëriñ Tuubaa jigéen moom lañ ko jagleel bala ñuy daje ak nag ñi nga xam ne ñooy njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha ñi nga xam ne conférence bi jël ak talaata ñoom lañu ko tuddee ak guddi gi nga xam ne jigéen ñi dañu ko tam kon ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maymunata maymunatul mbakiyu maymunata maymunatul mbakiyu